wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat Touba ca kanam jot ndigal ci xalif général kulu murid Serigne Mountakha Mbacké ngir indi leen projet bi ñu dippee leeral Touba leeral Touba di projet boo xamante ne bii Touba ca kanam waxtaan na ca xalif général kulu murit muy ñetti junniy làmp yoo xam ne fas nañ ko yéenee jële bitim réew andi ko fii ci dëkk bu sell bi di Touba yéen boroom kër yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba ñuy sàkku ci yéen kenn ku ci ne fàggu ci benn làmp def ko ci buntu këram timis mu taal ko ba fajar def ko àddee Serigne Touba ngir dëkk bu sell bi di Touba mën a am leeraange gu doy sëkk waaye kaaraange gu doy sëkk sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général kulu murit gannaaw bi mu fàggoo ci làmp yooyu nag mi ngi ciy soññ mbooleem taalibe yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum senegal ak bitim réew ngir ñu fàggu ci làmp yooyu nga xamante ne bii ñaari junni dong lañ leen koy joxe fii ci Touba ca kanam ngeen mën koo def seeni buntu kër ngir def ko àddee sëriñ Touba timis ba fajar dëkk bu sell bi di Touba leer nañ ñi dëppoo ak ni mu war a mel. li may gën a yéem mooy moom mooy waar waxtu wu nekk kon mooy loolu nag mooy taxawaay bi seen taxawaay bi lépp mën ko tënk foofu yitte rek la te yitte nag mooy li nga xam ne moom fu mbir àgg rek yitte ko fa àgg la ndax lëndëm moom kenn neex ko bëgg kenn bëgg <laughs> ko leer kenn ko doyal <laughs> képp ku ci bëgg ay leeral mën ngeen a woote ci 76 184 96 94 wala 77 341 97 15 ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bii di Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat